ay ca mu ngi noonu mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee waxoon naa leen papis bu jógee lu mu waxul baaxul gis ngeen li ma leen di jox sànq ba tey euh, tey nag ñu ñëwati ci beneen ndaanaan ñëw ci garmi ñëw ci ki nga xamante ni nii euh, day fierté Thiès cees di ko ndamoo ndax liggéeyam bu rafet ndax lu am maanaa li muy def li nga xam ni dafa rafle woon dañ ko rafle woon ci Thiès tey ci moom lañ koy jëlee muy kan muy Ibou Laye Ibou nag moom mooy borom sopp Serigne Saliou Ah, donc tapisserie sopp Serigne Saliou ah, foofee la Ibulaay nekk moom mooy borom tapisserie sopp Serigne saaliw ah, donc mu nekk koo xamante ni nii tey cees kenn dootu ko laajte kenn dootu ko natable ndax liggéeyam bu rafet. gars yi waxoon naa leen ne leen fauteuil dafa am ñu ko mën am ñu koy jéem. Ibulaay nag dafa bokk ci ñi ko mën tubarkàlla macha allah jàng ko fam ko war a jàngee tey mu ñëw di ci fournir ci Sowaay lu am solo ñu jàkkaarloog moom fas yéene waxtaan ak moom ci liggéey bi Ibulaay dama lay bàyyi nga nuyoog mbokki téléspectateurs yi ba noppi ñu doog dugg nag ci fauteuil yi ndax tey jii da ngeen dégg-dégg Ibulaay maa ngi lay nuyu. te maa ngi lay fay di la ziar lu bëree bëri di kontaan si yow seet si bi ngeen ma seet si nii bég naa si trop voilà maa ngi nuyu waa Thiès ñëpp nag bàyyiwuma kenn kaw ba suuf. di wax ni fii mooy yi Sopp Sëñ Saliou waaw ñu nekk fi nag di jéem rek xam nga di jéem maak samay emprendre ñoom ñëpp ñu nekk fi nag xam nga déggal ma ñu dóor lu nice xam nga te yéen naa si waa gépp nag képp ku bëgg tamit xam nga numéro téléphone baa ngi nii xam naa kaaw après dina ko affiché yaa ngi dégg maa ngi nekk euh, route de parcelle boo jugee Concorde avant nga yàgg parcelle rond point parcelle maa ngi si diggante bi di defar lu nice nag bëgg wàcc yéen a si wàccees yëpp. dinañ ci ñëw Ibulaay Ibulaay euh, ñu gis fi xeeti euh, euh, fauteuil yoo xam ni dañuy wër Cees wërngal këpp duñu ko gis Ibulaay lan mooy sa secret ci fauteuil ba tax ñëpp taamu la. non dara affaire yi moom dañuy jàng rek sa parce que li nga wax ni nekkul li ma caméra bi tiim sax moo tax ma koy wax mais clients yi sax des fois dañuy ñëw mais dañ ma koy wax dañ naa ma dañuy wër Cees gépp mais franchement li ngay liggéey gisuñu ko fen loolu tamit dama siy sant yàlla rek pour man daal yàlla moo ma cëralee lool xam nga ma bëgg tamit xam nga Cees waa du Cees waa Sénégal gépp xam nga sedd si ñëpp li may liggéey nii xam nga ñëpp gis seen bopp te su ma sañoon tamit gars yi nañ ñëw daal nañ ñëw rek. bu waaye yow Ibou Laye nga defee ni euh, leneen ni ñeneen ñi di def boo ko defoon xaalis bi du gën a bari ndaxte tapise yi léegi dañu lay defaral fauteuil fauteuil ba du baax ngir ñu bëgg nga gaaw a ñëwaat ngir ñu bëgg a waat waaye Ibou Laye da lay defaral fauteuil fauteuil ya da nga cay toog ba say sët sëtaat di ci toog te du yàqu Ibulaay loolu est-ce que dina la arranger Ibulaay loolu da lay daaneel. waaw mais tamit mais xam nga tamit ku ñëw xam nga génn sa xaalis moom franchement ñëw bëgg parce que koo gis mu ñëw si nit rek bëgg lu baax la bëgg. lu baax la bëgg te nit nag boo bëggee lu baax moom tamit dañ lay defal lu baax rek xam nga man loolu laa gis quoi te it lépp lu ñu la wax tamit dañ koy def moom. xam nga buñ bii la moom bu soobee yàlla xanaa dee wala ñu am lu ñu empêché mooy tax mais luñ la mënti wax moom. dañ koy respecté xam nga en tout cas daal ay xéwal lañ te ku ñëw tamit doo ko rëcc. Ibulaay euh, tabaski la ñu jub si euh, commande yi bari lool macha allah tey ñu fekk fi xeet bu ne ah façon bu ne ñu fekk ko fi Ibulaay euh, lan lan lan ngay wax mbokk yi nga xam ni ñoom ñooy ñëw ci Ibulaay client yeeg yu ni mel. waaw comme li may wax rek mooy tabaski bi moom franchement génne nañ fi ay modèles yu bees xam nga nit ñi tamit bëgg nañ ko xam nga. te nit moom saa su booy liggéey liggéey lu nit ñi bëgg parce que nit ñi seen xaalis lañ yor yor seen bët lu bu ñu gisee lu rafet doo sax woo man tabaski gi boo seet ñi ma fi liggéeyal gën wàll gépp xaw ma leen mais dañuy romb yor seen oto gis ma exposé lu nice te am na yeneen projet sax yu bees parce que incha allah ñu ngi ñaan yàlla bëgg nañu xam nga yor ay salle de exposition di exposé ah xam nga ñi ñi di ñëw xam nga te fi mu toll nii ñu ngi si ñu foofu daal lañu toll instant yi maa ngi si liggéey lu bëree bëri bu baax a baax a baax pour incha allah après tabaski xam nga ñu projet yooyu ñu song ko door ko en daal ku ñëw daal di nga am li nga bëgg bu soobee yàlla euh, mi ngi noonu kaaw ku ñëw di nga am loo bëgg kàddu yooyu nekk kaddu yi Ibou mi nga xam ni moom mooy borom tapisserie sopp Serigne Saliou euh, nekk fii ci yoonu euh, parcelle boo jógee Concorde Ibou Laye ngay jot ci sa gauche donc mu nekk lu am solo tey jii li ñu fi fekk ci xeeti fauteuil li waa Thiès doon wax li àdduna bi di ngun-ngunee ndekete dëgg la donc tey jii moom la ñu seet si moom mooy tey ganu tey Tawfekh li ñu jëm ci xeeti fauteuil xam ngeen ni lii am na solo damay faral di wax naan euh, euh, comme ni ko Waly wooyee musique xale donc tey ji xale yi ñoom ñoo nekk di liggéey liggéey bu am solo ndax Iboulaye dafa nekk un jeune ambitieux nekk un jeune dynamique nekk ndaw lu gëm boppam aussi yor ay xale gis ngeen noonu xale yi ni ñuy liggéeyee di leen jàngal métier bu wér te wóor dégg ngeen projet yi mu wax après euh, fête dafay ñëw ci exposition yi nga xam ni moom mooy expos euh, di di defar di exposé euh, nit ñi di ñëw di ko gis di commandé donc loolu nekk lu am solo Ibou Laye dañu lay ñaanal déwénati bàyyi la nga ñaanal ko say client waaw waaw comme li may wax rek li may ñaan daal mooy nañ ko fekkee ay at yu bëri ak samay client samay emprunté ñun doon tamit ay jàmbaar yi ñoom ñëpp daal laay sant c'est parce que affaire bu doon man ak man kase du egsi fii mais ñoom tamit jàpp nañ fi ku mel ni ndonga xam nga xam nga Modou Aada Malick gaa yi daal bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp ñu ngi si biir ay jàmbaar lañu franchement parler ñu ngi liggéey teg ko si yoon man mi seen baron tamit teg ko si yoon. waaw di ñaan yàlla nag xam nga ñu dem ay ati at ba affaire yi gën a xéwal yi gën a ñëw xam nga. waaw mooy loolu daal. voilà. jaajëf jaajëf euh, Papis Seydi ci caméra bi DJ Papis Kaaw euh, Papis Seydi ci micro bi du moins euh, Kaaw ci caméra bi mbokk yi mu ngi noonu tey kii la ñu seet si woon Ibou Laye ci tapiseri sopp Serigne Saliou donc ñu leen di jox dig daje yéen waa Tawfekh TV ba beneen ak ci yeneen i bagages merci beaucoup.